mooy gi comme aadama dafa nekk ci lii léegi nag procès bi Karim bu bu bu tay bi. Mm. Euh, bu tay bi xam nga bu tay bi man lan na may inspiré parce que euh, li kii wax xam nga kii wax na ko sànq. Mm. xam nga booy wax ak gars yi novice politique yi ak ñi amul expérience. Mm. maître Ciré Clédor Ly ak maître Bamba Cissé. c'est des avocats du système. Mm-hmm. Euh, comment ça qu'est-ce que tu appelles des avocats mooy avocat du système. mooy avocat yi nga xam ni dañu am ay xarit fii am xarit fële. Ah, dëgg la. tey maître Bamba Cissé il il est il est plus qu'un avocat. Ah, na ko nag. parce que ci projet ci ka kii bi moom daf ci nekkoon au cœur di recruter jii di dem di faire transhumer di indi ñeneen. mais sax moom sa nekk moo recruter sax avocat yi ci nekk ñëpp. donc Bamba Cissé tey. lépp loo xam ne nii li projet bi. Mm. am na avocat yi li ñuy doon ay trente ak li ñuy doon ay cinquante Bamba Cissé la mu ca xam. ñenn ñi xamuñu am na si ñoo xam ne dañuy wër rek. ay ñoom Khoureyssi baag yooyu ay ñeneen ñeneen yi dañuy wër ci plateau yi di wax rek mais maître Bamba Cissé Bamba doo ko dégg ci benn plateau avocat mm. waaw mm. sama xarit la nag soo ko gisee mu compliqué rek mu génn mm. waaw su génnee rek xamal ni ni dossier bi fa toog na phase boo xam ne te du wax luñ koy luñ koy xeebee yeneen avocat yi yu ndaw yi waaw nu wax waaw dëgg la de mais mais maître Ciré Clédor Ly xam-xam nga wax maître Ciré Clédor Ly c'est c'est le pire avocat du système mooy pire avocat au système. li ñoom Ousmane créé tuddee ko système mooy mooy mooy mooy avocat au système. Abi Diallo nga ne nga ne nga ne nga ne mettre clé clé moo doon avocat au Karim Wade. maître Clédor mais l' affaire Karim Wade ni mu tourné autour derrière waxtaan génn ba ñu déplacé Karim Wade ba génnee ba mais kan moo fa nekkoon expérience su si. Clédor kon kii xam nga les gens. ci loolu. yow yow li nga wax nii yow tu mets de l'eau dans le moulin de Adama Fall da xam nga nee na Clédor ak mu sell mi muy Ousmane ñoo àndandoo ci avion privé génn dëkk bi dem toog négocier le même Clédor le rappel est pédagogique. mais c'est le même c'est le même Clédor qui était tamit. l'avocat de Karim euh, Wade un à l'origine de l'exil dégg naa Karim Wade xam nga tax moo wax la ne la te Clédor dafa dafa dafa dafa am dafa am benn benn affaire mooy soo xoolee sous raison bi. Mhm. CEDEA espace CEDEAO bi président africain yi nga am ay xaritu président ay xaritu opposant yi Clédor seen avocat Mm-hmm. doo xool procédure yi am CEDEAO gis nga Clédor keroog bi ñu demee seen dof bu réew boobu euh, euh, Bancro xawma euh, Branco bi muy reewantu gis nga Clédor ni mu joxee honneur juge u CEDEAO Branco ci parce que loolu ci seen faute la seen faute stratégique la mm-hmm. il faut ñuy nangu ni ni ñoom ñoo juum erreur la donc après bu ñuy évaluer nañ ko ci boole waale mais mm-hmm. maître Ciré Clédor gis na bi mu taxawee di wax ak juge u CEDEAO ni mu ni parce que CEDEAO s'il y a un avocat bu ëpp tànk Siré door lii la